raaya réew mi muy drapeau national ci turu président Macky Sall mu di ko jox nag suñu ndaw ñi nga xamante ne ñooy équipe nationale bu senior ci jigéen ñi war a dem ca Yaoundé ca Cameroun jongante ji li ñuy tuddee Coupe d'Afrique des Nations bu handball loolu nag baaxantal la boo xamante ne saa su ne suñuy représentant bu ñuy dem dañ leen di jox ci turu borom réew mi li nga xamante ne ñëpp ko bokk ñëpp di ci gis seen bopp muy raaya réew mi di drapeau national ñu leen koy jox pour kañ leen ñu leen koy jox aussi pour ñu xam ne fa ñu jëm Sénégal lañ fa jëmal te dañ fa war a wone xarkanam bu rafet compétition sportive nag xarkanam bu rafet ni ñu koy joxe mooy dem ba jeex xeex ba tëdd ci suuf booy daanu sax nga daanu ak say arme à loolu nag am nañ ci xel mu dal parce que xale yi du fa tey rek lañ leen mës a jox drapeau national du tey rek lañ mës a représenté réew mi dem nañ fi coupe du monde dem fi final coupe d'Afrique wala ñu dem fi demi final coupe d'Afrique ren nag dañ leen di ñaanal ñu dem jël ndam li ca Cameroun parce que Cameroun Camerounu Sénégal la ci ñaari at yi ñu jëm parce que ñoom bu ñu fa jógee it équipe nationale bu góor bi muy football dañ fa war a dem ci 2022 defe naa ne émissaires yooyu loolu rek doy na kañ ñu xam ko pour gën a góorgóorlu euh, ku leen sant nag gërëm leen seen taxawaay dina sant la président Seydou Diouf nga xam moo jiite ANBAL ak ñi mu àndal ci liggéey bu am solo bi ak liggéey bu rafet bi ñuy def ci réew mi pour ANBAL dundaat ñëpp xam nañ ne ANBAL demoon na ba perdre li mu amoon. kon dañuy sant sa taxawaay président Seydou di la sant ci liggéey bi ngay def de la de président fédération. parce que leer nañu ne honorable député nga président de commission des finances la nga ci assemblée nationale te gis nañ taxaw bi ngay taxaw sport waxuma handball mais sport bu département ministériel bi ñëwee foofu ci assemblée nationale am na lu ñu waxul ci kàllaama nasaraan aussi parce que Seydou bokk na ci ñi gën ñi gën a fës ak ñi ñu gën a respecté ci fédération africaine de handball confédération africaine de handball boobu junj doy na borom xal xam nañu ne jox nañu la cër te Sénégal dañ la war a jàppale parce que bu ñu gisee doomu Sénégal bu nit ñi jox cër ci bitim réew dañ ko war a taxawu parce que ci ni ngay occupé yenn post yi ci la ñuy profité pour développer li nga xamante mooy suñu discipline. di gërëm nag ñi nga xamante ne ñoo leen di jàppale waa Orange awa ñaa ñu ngi lay sant ci sa teewaay dugguleet parce que miin na ne di la gis ci discipline yëpp nga taxaw représenté Orange ngeen di jàppale tàggat yaram. te loolu lu ñuy magnifier la di la gërëm di la sant di gërëm directeur général bu Sonatel bu Sénégal di gërëm ñiy liggéey Orange yëpp